والحادي إلى صراطك المستقيم وعلى أهله حق قدره ومقدار العظيم إن الله وملائكته صلوا على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله تعالى عليه وعلى أهله وصحبه وسلم تسليما سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين mbokk jullit yi ñoo ngi leen di nuyu di leen ziar te di leen baalu àq di leen baal àq di leen nuyu te di leen ziar fa ñu leen daan nuyoo muy seen seen télévision seen kaddu di seen YouTube bi nga xam ne moo baaxoo di leen indil ajuma ju jot seen xutba bis bi te ajuma tey tombeek fukki fan ak juróom ñaar ci weeru arabi saaniya mu tombeeg fukki fan ak juróom ci weeru novembre ci atum 2019 seen mbokk julit imaam Mohamed Ndiaye fas yéene dellusiwaat layante sunu biir bopp tàmbale ci ñun di ko jëmmale ci ñëpp ndax kuy fàttaliit yow itam danga ngaa bokk ci ñu ñuy fàttali su ko defee ñun fàttali gi ci ñun la njëkkee yonent bi daan na ci son fa dakkir inna dikraa tanfa'ul mu'minin yéen dee leen di fàttali ndax fàttali dina jëriñ julli ci mu mel ni weer bi ñu nekk weeru sant yàlla la sant yàlla ci bu wër ci bi nga xam ne yàlla tànn ummatul islaamiya mu gënal ko ci umma yëpp mu tànnal ko yonente bo xamné mo gën ci yonente yi te mo gën ci lu yàlla suñu borom bind moy muhammad sallallahu alayhi wasallam ci suratul baqara yàlla suñu borom di lu baxé xéewal gogé nga xamné moy alquran nga xamné mom la ne dalikal kitab la rayba fi xuddan lil muttaqin waye yàlla dimbali ñu ñu bok ci xeet bo xamné kuntum khayran ummatan lin nas تأمرون بالمعروف وتنهونا عن المنكر إلى غير آية ñu war cee santaat sunu borom tabaraka wa taala ci ndimbal yi nga xam ne dimbali nañu ñëpp ñu gëm ko te doon ay julit te fas yéene ko wéye ci si ndimbal loolee tam yàlla baaxe ñu yonente bi sallallahu alayhi wa sallam muy xayral ibadi baabal ayaadi nuurul bilaadi asnal rajaay muy ki gën ci li yàlla sunu borom bind di buntu ngëneelu yàlla ci doomu aadama yi waaye nag di leer gi nga xam ne mooy leeral yi dëkkuwaay yi kon dëgg làmp buy leeral mooy rasulullah sallallahu alayhi wa sallam kon dimbal gi nga xam ne yàlla dimbali nañu ko yàlla dal di ko féddaliwaat ci alxuraan ne leen yéen sant leen ma yéen doomu aadama yi yaa ayyuha allazina amanu iskurullah zikran wa kasiran zikran kasiran yéen ñi nga xam ne gëm ngeen na ngeen dolli sant yàlla ci sant yu wër fa tabaarakallah ñu ne mu mel ni dañu ne yàlla ci lu nu war a sant fa tabaarakallah yàlla ne tànn gi ma leen tànn ngeen nekk ay julit waaye tànn gi ma leen tànn ngeen nekk ju gëm nga xam ne képp ku gëm yàlla la woññi teg la ci yoonu jub teg la ci yoonu jub leeral la sa yoon bi Dieu est la direction de tous les croyants allahu waliyu alladina amanu yurdiduhum min aldulumaati ila al nuur kon ndimbal googee war naa mën a tax ñuy sant yàlla di ko sant ba faw yàlla dolli tam mu ne waxul sax dikkaran kasiiran waaye wa saabitu bukratan waa asilan yéen jullit yi te gëm nee na dee may màggal guddi ak bëccëg leelan wa naaran guddi ak bëccëg bukratan wa kasiiran ndax cant gi di dëkk ba faw ngeen di ma sant kon cant gi mu ngi melni sax bind gi nu yàlla bind ñu doon ay doomu adama dong warna naa tax ñu sante yalla suñu borom bind gi ñu yalla suñu borom bind nag wat ci doomu adama gi muy ngeenel nga xamne ne entre l'animal l'homme a été la créature la plus choisie de Dieu mom la yalla suñu borom gën a bëgg ko ci milliards yi mbindee suñu borom bind yalla tan ci nit kott parmi les atomes parmi les êtres vivants, parmi les vertébrés, parmi les invertébrés, parmi les visibles, parmi les invisibles Yep. moi ay mindef yo yalla yu xam ak yu ak ci asaman ci bir ak ci bir souf yo yep yalla bind len ay mindef. rek am ci façon bi ko ak bi ko ne na la yow nit nga gënal ma kon lolu war tax ñuy yalla dimbali ñu nak def ci ñun leer go xamne kudul julit kudul nit kudul nit amuloko muy lan la raison Dieu nous a doté de la raison raison bobu tax tey jii ñu mëna xam laqad karam bani adam wa amal fil bahri wal bahri yahariha li nga xamne yalla suñu borom def nako muy kéemtaan ci diggante asaman ak suuf ci bir suuf ak ci bir géej

yéen doomu aadama yi surtout yow yonent alayhi salaatu salaam na nga témoigner oh yow sallallahu alayhi le prophète que j'ai choisi l'exemplaire que j'ai choisi nga xam ne laqad kaana lahum rasulullahi iswatun hasanan jikko yi rafet yëpp ma wàccee ko ci yow yow rasulullah alayhi salaatu salaam kon maa ngi lay ñaan nga seede ëllëg na nga témoigner ni man sa borom kat man nee naa la nga woote woote gi mooy wada yan ilallah bi isnihi wa sirajan munira kon yàlla nee na yonent bi alayhi salaatu salaam témoignel man maa la tànn ngir nga woote ngir nga doon kan jant buy leeral siraajan munira mu jant boo xam ne bu fenkee rek dafay leeral mu mel ni kon fekk na Serigne Touba ci li mu waxoon baabal xayaadi nuurul bilaadi asnox rajaahi mooy buntu ngëneelu yàlla buntu ngëneelu yàlla ku bëgg a jot ci ngëneelu yàlla benn bunt rek nga mën a jaare moo Seydina alayhi salaatu wa salaam képp koo xam ne sa kër lëndëm na du caagan lamp yi ñooy leeral suñuy kër wala lampadaire yi leeral suñuy dëkkuwaay yi wala courant bee leeral suñu dëkkuwaay yi waaye dëkk boo xam ne kenn du fa tudd rasul alayhi salaam dëkk boobu leer amu fa kon suñuy kër yi suñuy kër yeeg suñu dëkkuwaay yeeg suñuy mbedd yi ak fu nu mën a nekk coupure courant taxut mu lëndëm taxut mu leer tam waaye nag rasulullah alayhi salaam ñàkk ko tudd rek moo tax mu ñàkk la kon di sant yonent bi alayhi salaatu salaam ngënee la ci boo xam ne kenn xamul nu mu toll ñu war cee gën a góorgóorlu baax amoon na benn jaamu yàlla joo xam ne ci jamono rasulullah alayhi salaatu salaam ñu tuddee ko Hassan ibnu Sabit Hassan ibnu Sabit dafa bëggoon yonent bi bëgg xam ne fu mu nekk fu mu dégg rasulullah alayhi salaatu salaam da ciy toll sallallahu alayhi wa sallam sallallahu alayhi wa sallam bëgg googu demoon ba mandargaalu ci moom ba yonent alayhi salaatu salaam seede saaba yi ne leen képp koo xam ne bëgg ngaa gis nit koo xam ne mi ngi dund te dugg ajana na nga xool Hassan ibnu Sabit kon loolu bëgg rasul alayhi salaatu salaam moo ko ko mañ kon lu nu mën a bëgg suñu àddina te muy nit rek yonent alayhi salaatu salaam moo la faw xam moo la kawe mi ngi mel ni julit dëgg-dëgg nga dégg Muhammad nga teg ci rasulullah alayhi salaatu salaam wala sallallahu taala alayhi wa sallam mi ngi mel ni njanaaw goo xam ne dafa sax i laafam ci biir laaf yi bu ko firee y a des plumes et des bu nekk am na juróom-ñaari junni bopp ci juróom-ñaari junni bopp yooyu benn bu ci nekk am na juróom-ñaari junni gémmiñ ci juróom-ñaari junni gémmiñ yooyu benn bu ci nekk am na juróom-ñaari junni lameñ ci juróom-ñaari junni lameñ yooyu lameñ bu ci nekk mi ngi lakk juróom-ñaari junni langue ay dialecte yoo xam ne dialecte benn bokku ci ak moroomam te dialecte bu nekk lameñ yooyu ñu ngi ciy sant yonent alayhi salaatu salaam di julli ci rasulullah alayhi salaatu salaam muhammad sallallahu taala alayhi wa sallam kon dimbal gi nu yàlla dimbaliwaat encore ginnaaw bi ñu defee ñu doon ay doomu aadama ginnaaw bi mu ñu defee ay julit mooy boole ñu dëgg-dëgg ak ki mat boole muy jiit ki mat a jiite muy jëmm ju mat a jëmale muy yonent bi sallallahu sallam kon ñoo ngi ndokkeel mbokk jullit yi nga xam ne ci fan yii ci ginnaaw ñoo ngi ko doon màggal nga mooy màggal juddu rasulullah sallallahu alayhi wa sallam nga xam ne tey ca la leeru àdduna dal di am bi yonente bi ñëwee ca la lëndëm dal di dañ leer dal di dugg ba faw bi yonente bi ñëwee safara yi daan jaamu ay at muy les feux qu'on adorait pendant des siècles et des siècles safara yooyu juddu rasulullah sallallahu alayhi tax na ñu dal di seey fay

on avait construit des palais partout ci biir Adina. palais yooyu ñu jàppale ni kat les palais là ce sont comme palais le palais de Nebuchadnezzar en Babylonie palais bobu kérok bi nga xam ne muy dëkku Faris Yegna na ni Rasul alayhi salaatu salaam juddu guddi gi mu war palais Bobu dafa tit ba lox màbb jëw nit kon jëmm joojee nga xam mom Yalla suñu borom baxé mom la suñu mag ñu bax ñu doon magal fan passé Japp ko nak taaloo te kenn xamné xam ne cëraloo sallallahu alayhi wasallam rek amulo cër ci Yalla. kon mag ñi gàcce ngaalaama jaaraama yéen jërëjëfe Serigne Touba jërëjëfe Cheikh Sidi Hadj malik jërëjëfe Ibrahima Niass jërëjëfe maam bu Kunta Ndiassane jërëjëfe maam Limaamu Laay ñooñu ñëpp ñu doon ay mag ñoo xam ne dañoo daje doon benn boole Sénégal mu nekk benn téye Sénégal mu nekk benn téye diine Sénégal mu ñu xam loolee yàlla suñu borom doon wax dal di leen ne nag yéen ñoo ngi leen di sant ngeen benn inamal muminina ixwatun fa asliqu bayna ahwikum lii la sunu mag ñi daan dund te lii yàlla na yàlla suñu borom saxal ko ci suñu réew mi di Sénégal saxal ko ci réewu julit yëpp yàlla na Sénégal wàll réewu jullit yi ngalawaay doomu ndey ak sunu doom na ngeen góorlu ci tey gi nga xam ne tey nañu diine gi fii na ngeen góorlu ci jàppoo gi nga xam ne tarixe yi jàppoo nañu ko ngir islam nekk benn ndax tarixa bu mu a doon bu ci amul l'islam rek l'islam amu fa kon nanu góorgóorlu jàpp l'islam diine l'islam moo fi nekk jàpp gi ñu koy jàpp muy mbokkoo bi yàlla suñu borom boole ñu bokk te bokkuñu couleur bokkuñu langue bokkuñu ethnie bokkuñu leen waaye ñu jàpp leen li nga xam mooy une seule carte d'identité moo xam ne ñu boole muy carte d'identité alxuraanu karim ci carte d'identité boobu ci la nekkee benn ñu ñëpp jullit yëpp nekk benn kenn gënatul sa borom kenn mënatul sa morom kenn ëppatul sa morom ñu ñëpp ñu bokk dem yem ci yàlla kon mbokk jullit yi message bi lañ amoon ci dimbal bi nga xam ne yàlla suñu borom dimbali na ko ginnaaw gàmmu gii nga xam ne weesu nañ ko mu nekkoon màggal guddi mawlidi nabi nga xam mu judd bi nga xam moom la yàlla suñu borom xéewale àddina lëndëm dal di de jaayi la dal di dañ leer dal di ñëw kon nag na ñu góor góorgóorlu ba bu nu sakkoo leer nañu fexe ba leer boobu bu ñu ko jaay jëndee ko lëndëm sunu maam Serigne Touba dañ doon digal ne laa tastarixi dunya wal uxra ya fata man baa nuuran fi du jaa fa sa yan damu ba leer gi nga xam ne sàkkul nañ ko ci xew yu baax yi ci bés yu baax yi ci màggal yonent alayhi salaatu ak ci tattagal gëm ak kontante yéegal sunu mbégte yéegal sunu cofeel ci li nga xam ne yàlla sunu borom xéewale na ko àddina muy un cadeau boo xam ne kenn mësu ko dégg ci àddina mu yàlla sunu borom tibb jëmm ju mel ne rasul alayhi salaam wàccee ko ci suuf ngir mu doon royuwaayu doomu aadama yi kon mbokk jurit nañ ci góorgóorlu bu baax yàlla na yàlla suñu borom saxal jàmm ci Sénégal yàlla na yàlla suñu borom yàggal xol yi te te te boole xol yi boole leen ci lan ci barki Muhammadu tabi al abimi al mumri al amradi wal ashami ndax yonent alayhi salatu salaam mooy saafara jàngoro yi mooy saafara xol yi ci barke muhammadu tabi bin al umami al mumri al amradi wal ashami wa saliyan alayhi suma sali wala alima ashab al khurama ma aflaha al masxulu bi duwahi wa kufiya al marid bi istifahi in uridu ila al islah ma statatu ma tawfiqu ila billah والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته سلام على من استباع الهدى يلا سنبرم دفل ميجان بأجم بيدي يوم إن شاء الله ربي جرن جرجف تبارك